bokki yi asalaamaaleykum wa ñu ngi fii ci barab bu ñuy wax feex boo génnee Alieu daw quelques kilomètres rek ci sa càmmoñ ci la ñemee nag ci barab bi nga xam ne soxna si fi dëkk néeg bii ngeen di gis ci la nekk moom ak njabootam yëpp commission sociale jël en charge ne dañu koy tabaxal néegam waaye tabaxal ko ay wanak loolu nag li ko may commission sociale mooy recensement bi nga xam ne ñu ngi doon dox di saytu ak di nemmeeku ñi gën a yayoon dimbal lii nag bu ngeen gisee commission sociale ci njiital Serigne Mouxtada moom Serigne Abdoul Fattah ànd ci ñu di ko wane dañoo bëgg ñëpp xam ne baraba ngi nii ak ay baraba ngi nii yoo xam ne nii yayoon nañu ndimbal ñu ànd ak yéen rek ak waa commission sociale ñu xool liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la def bismillah fi ne nii amagul amul lal waaye ay ay la teg nii. waaw jëlum mat laa teg ko ci ak i ñax. waaw mat ñaata at nga dëkk fii ci néeg bi. man depuis daaw fii fii nit ñooy yeewoo fii ci néeg bi. fi ne saa yi man ak sama ñaar doom ñoo fi nekk ñu si def dama leen a dénkaane si fee ndax xajuñu fi ñun ñëpp. daara mi nam waa fee sama kër mbokk ne foofu. Hmm. fa lañ nekk waaw. <laughs> ñaari ñaari ñaari nit ñoo fi ñoo fi ñoo fi ñoo fi yeewoo fi mu toll ak man mi waaw ak man. ñi ci des ñëpp nag dañ fi xaju. déedéet xajuñu fi déedéet. léegi sa ñu ngi sa kër mbokk yi. waaw. nga xam ne fii daal ku koo tabax ngay nga bëgg. waaw man kay ku mu si jàppale rek laa bëgg te yàlla tax. incha allah waaw ndax sama borom ko dafa nelaw. Mhm. moom ma ko ma jàppale. Mhm. waaw. incha allah ku mu si jàppale te yàlla tax. waaw incha allah danañ ci taxaw ba mu. incha allah incha allah waaw. naa si yaakaar man la gisee la sama xel dal nekkoon na sama rêve sax bu yàgg dama daan romb gis oto bi ñuy dimbal ay nit ma ne nii de kay kañ lay taseeg nii bañ jàppale ma ba ba ma génn si jafe-jafe yi ma nekk tàngaay bi moo ma jàpp moo def fan yii yëpp dama maa feebar rek tàngaay bi joxoon na leen tey suba ku nekk ceeb ak suukar jox ñu la ko waaw ak xaalis ak jox nañu ko mhm. Mhm. jox nañu ko waaw alhamdulilah. na kon léegi néeg bi ñu defal moo fi des. macha danañ ci def tawfeex danañ ci def suñ kamtalaay kàttan ba suñ borom mën koo sottal. incha allah. liggéey bii la Touba ca kanam jaarale ci seen commission bu mag bi ñu duppee commission sociale ci njiital Serigne Mouxtada moom Serigne Abdoul Fattah liggéey bu solo bii lay def nii it lañ koy defee dañuy daw topp dëkk yi ba yegg si ci barab laaj fi nu mu tudd. ñu wax turu dëkk ba ngeen xam ne fii ñu fi nekk ñëpp a yeyoo dimbal du daanu nag dajul suuf gis ngeen bi mu dimbalee ñëpp it am na ñoo xam ne amuñu woon am na lu mu leen boole ngir ñu séddale leen ko ci ceeb ci yére ci suukar fii nag mooy Tawfekh Bousso bëri na ay barab yu mel ni yu wër ndomba dëkk bu sell bi di Touba Touba ca kanam nag wane gi muy wane lii lim ci jublu ngir xiirtal nit ñi ci ñu jóge ci taax yi ñëw fekk si ñi dimbale leen jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi Serigne Mountakha loolu la woote Serigne Touba ci loolu la mës a nekk kon liggéey bu am solo bi moom la commission sociale di liggéey di ko yëgal liggéeyal Touba ci kanam di ko liggéeyal jullit yëpp nag kon nag na ñëpp ñëw ànd ak commission sociale ngir yu mel nii ñuy mën a ànd di ko saafara barab yi nag gis ngeen ko seen néeg seen douche seen waañ yi bi ñu yegsee it doléance yi fu nekk lay jógee kenn ku ci nekk ngi kar Serigne Mourtala kii ne ko ñun ay seng mooy sunu jafe-jafe kii ne duus mooy sunu jafe-jafe kii ne waañ mooy sunu jafe-jafe kii ne xool leen sama néeg bi sama njaboot gi yëpp ñoom laa ciy tëddal ñooñu nag Serigne Touba rek ka leen fi indi kon mbokk yi nañ ñëw waar wi yaatu na te yaakaar naa ne li Serigne Touba baaxee taalibeem yi xajuñ ci barab yu mel nii kon fii taw Tawfekh Bousso la waaye taw Tawfekh Bousso yi bëri nañ am nañ ci ñeenti xibla yëpp nag ay Tawfekh Bousso yu dul jeex loolu rek la Touba ca kanam a commission sociale di jéem a dox te gis ngeen kenn tegtalu leen barab bi dañoo ñëw ba gis lii xam ne lii kat war nañ koo ne ngir li Sëriñ Muntaxa wax ci gi kenn ku ci nekk bàyyi xel ne boo yoree sa ndimbal bu la neexee sax bu laaj Touba ca kanam jëlal ñeenti xibla yi bu mu la ci neexee rek nga def ni commission sociale boo yeggee ba ci kaw nga jàdd sa càmmoñ wala sa jàdd ndeyjoor di fa fekk ñoo xam ne lépp lañ manqué mbokk yi kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp. كريم يا جليل هامل جميعنا بلطفك الجميل وكن لنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وسلام commission sociale Touba kanam baax nañ bëgg nañu dimbale ñëpp waaye nag daanu dajul suuf kon na ñëpp ñëw jàpp ci commission social ñu jàppale sunu mbokk yi nga xam ne nii Serigne Touba a tax ñu gental seen dëkk ñëw uyu si jàmbaarul islam jooju te it xam ngeen ne ku yaakaaru la jërë ngeen jëf